voilà donc tey dañoo euh, kontaan trop ma àndoon tey ak euh, secrétaire euh, d'État au PME ñëw inauguré si li nga xam ne moom mooy supermarché bi dama ne sax hypermarché la ndax bii moo gën a rëy ci yi ma gisagum au Sénégal bëggoon félicité d'abord ki nga xam ne mooy Khadim Kébé nekk un patriote nekk koo xam ne wax dëgg yàlla dafa bëgg réewam dafa bëgg dëkk muy Touba. ñaari il faut ñu fees aussi nga xam ne mooy le directeur général monsieur Correa nga xam ne moom également conception beeg liggéey bi yëpp ci jàpp. li tax ma ñëw mooy man maay ministre du commerce et de l' industrie initiative yu mel ni moom moo manqué woon Sénégal ndax ku ne xam ne ne Sénégal ci wàllu supermarché depuis Sam Prix Bas nga xam ne papa moom moo ko taxawaloon amuñu vraiment une marque vraiment sénégalaise loolu moo waral euh, ma ñëw pour encourager leen. à ce qu'on appelle donc initiative locale de de de de construction et de développement loolu nag euh, état bi ci boppam dafa am projet bu mel noonu dañoo bëgg dans les huit régions yi nga xam ne mooy pôle bi bu ci nekk am ay supermarché bëggoon dans les quatorze régions du Sénégal mu am ay supermarché bëgg dans les quarante cinq euh, départements mu am ay supermarché loolu nag mooy euh, ñoom dañu ubbi la voie moo tax dama leen bëggoon na sant au nom du président de la République Bassirou Diomaye leen également pour li ñu def nii ñu def ko ailleurs mais aussi félicité leen ci initiative bi ndax sénégalais yu bëri mënoon nañu def lii mais defuñu ko depuis 1960 sénégalais yu bëri mënoon nañu def lii pour simplement parce que euh, dañoo dañoo war a fexe ba li ñuy béy ci réew mi ñu mën koo distribuer ci réew mi ndax soo béyee fekk amoo semence bi ñu ko jaayee day yàq te gis nañu conditions yi muy climat bi muy température chambre froide yi ak produits locaux yi loolu mooy li nga xam dañu leen war a encourager wax leen nag état bi na leen jàppale ndax le gouvernement du Sénégal dafa am un projet boo xam ne huit pôles la ñu bëgg a def muy pôle commerciaux industriel nga xam ñoom dañ leen invité ñu ñëw foofu pour ñu jàppale leen pour ñu mën faa installé wu waaye dañu bëgg a def dans les quatorze régions ñu ñëw foofu aussi jàppale ñu ñëw dans les quarante cinq départements du Sénégal dañu bëgg lekk fi nekk dans tous ces pôles là et incha allah on va arrêter mettre en place deux fonds un fonds du commerce boo xam ne lépp loo xam ne développement supermarché la ak commerce dañ koy jàppale créer beneen fonds pour l' industrie boo xam ne mooy appuyer aussi ñi nga xam ne dañuy def ay usines ndax yu mel ni su amee ça veut dire que lépp loo xam ne dañ koy consommer ci màggal bi te Touba lay xel di jóge loolu aussi mooy li nga xam mooy projet yi ñu am pour Touba pour taxawal fi agropole pour que lépp ñuy béy di ko consommer ñu mën koo béyee fii à Touba mais taxawal aussi ay zone industrielle de de Touba comme ñoom projet boobu la ñu am ñun également nañ leen appuyer taxawal beneen zone loo xam ne dañ koy consommer muy euh, mbirum euh, légume muy euh, des produits carnés muy loo xam ne dañ koy raxasoo ay savon yu mel noonu dañ ko bëgg a dem ci màggal bi wala ci màggal yi dañ ko war a mën a produire à Touba produire zone industrielle Touba yi produire ko aussi ci agropole Touba yi jaay ko supermarché yi nga xam ne moom lañ moom la ñu visité tey kon vraiment content trop di leen gërëm di leen félicité.